président ci participation Sénégal bala mu ngi wax ne c'est un bilan positif yow la nga jàppee li nga xamante ne mooy euh, participation bi pour yow c'est positif wala am na loo xamante war nañ ko defaraat bu baax a baax. man euh, sama xalaat du ñëw ci ay positif wala négatif. bi may jógee fii déjà li ma waxoon rek laay répété waat. Mm-hmm. amoon na benn athlète sénégalais mu mënoon dem ci Jeux olympiques yi remporter une médaille parce que man je refuse de vendre du vent Sénégalais mm-hmm. Jeux olympiques comme ni mu ko waxee c'est huit ans pour gagner ci onze athlètes yi kenn dong moo réaliser minima minima yi kenn dong moo ko réaliser mooy Louis François Mendy ñeneen ñëpp ranking africain wala yeneen lañ ko dem lañ demee ak ñaari wild card si je ne m'abuse mooy ñaari invitation man d'abord la première chose sur laquelle je ne suis pas d'accord c'est que euh, ñooñu noonu wa en terme de moyens sax de soutien ki nga xam ne dafa réaliser minima am mu qualifier directement waroo ko tollale ci wàllum xaalis ci wàllum koppar ak ñi nga xam ne dañu leen invité hmm. ça c'est un premier aspect mais fi may d'accord ak moom mooy que ni am na quand espoir parce que nit ñi bu ñu demee fële dafay mel ni dañuy yaakaar ni dañuy dem pour remporter une médaille ça ce n'est pas vrai damay faral di wax sax amul benn fédération au monde dont l'objectif c'est de remporter une coupe d'Afrique fédération de football sa vocation ce n'est pas gagner une CAN je suis désolé bu nekkoon loolu donc amul kenn kuy diriger Maroc. mais si la bokk quoi. ah non non non non non développer le football lañ la wax mais pas gagner boo xoolee coupe du monde de football coupe du monde de football FIFA 211 associations ñoo fa nekk. deux cent onze pays ñooy composé FIFA ñi gagné coupe du monde quinze lañu suma ma quinze. donc ñeneen ñi est-ce que tekki dafa tekki ñeneen ñëpp liggéeyuñ defuñ fi dara boo newee en Afrique coupe d'Afrique Maroc kenn ñemewul wax ne amuñ infrastructure amuñ jumtuwaay amuñ amuñ amuñ dara 1976 la ñu gagné touché le Graal gagné coupe d'Afrique. est-ce que dakk nañu roi bi dakk nañu le président dakk nañu ñëpp à chaque fois boo leen demee ñibbisi si gañu wuleen rek on vire tout. président nga bëgg a wax. non non attends ce que je veux dire ñun sénégalais je ne comprends même pas la façon dont on analyse parce que pour man à chaque campagne on revient toujours sur la même chose chaque campagne bu ñu dem on revient toujours sur la même chose or on sait en amont qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui man ñi an man man mi àndoon ak ñoom quand je vois Sali xale la 21 ans la am. mu participer pour la première fois bi ñu ko interroger effectivement erreur bu mu def mooy que ni dafa njëkk a tëb mu loupé je crois mu raté deuxième fois mu tëb mu réaliser benn saut bu baax donc troisième saut bi ko desee day ànd ak pression boo xam ne il bu mu bu mu ko tëbee ak pression bi elle ne pouvait plus passer donc man bi ma ko interroger effectivement mu ne ma retenir naa leçon bi donc man prochaine fois su may demaat sama qualification maa ngi koy wut ci premier show bi donc kooku noonu da koy préparer dès à présent mm. en 2028 parce que Paris dafa demoon juste pour jàng nga mën a comprendre affaire boobu joxe na si yeneen exemple yu bëree bëree bëri mm-hmm. y avait 206 pays yi demoon 84 kese ñoo ci gagné mm-hmm. ñun Sénégal bi ñuy dem minima laal wax minima kenn dong moo réaliser woon minima te muy réalisé au je crois au meeting de trois en en France dix-huit la def depuis boobu ba léegi dépassé wul performance boobu maanaam defaatul lu wàccul wàccul wàccul wàccul kii boobu mais fenn foo xam ne d'accorduma aussi ak les autorités mooy booy bi bu mu defee treize dix-huit rek lui François Mendy bu mu defee treize dix-huit rek lu mu laajoon yëpp dañ ko ko waroon jox. waroon accompagnement dañ ko waroon accompagnement surtout que moom lu mu laaj muy vingt-trois millions kese la laaj. 23 millions mettez-le dans les performances pour mu titiller les meilleurs. Mhm. parce que am nga exemple ñun balaa ñuy dem on en a on en avait déjà parlé ici on a fait un débat avec El Hadj Amadou Diaba Diaba 84 dafa def final 88 mu ne man xam naa léegi qu'est-ce qu'il faut pour gagner. Mhm. donc nan laay def pour gagner Lamine Diack mi nekkoon président dem gis Abdou Diouf ñu waxtaan ñu ne kii kat pour mu gagner il faut que ñu jëlee ko Sénégal yóbbu ko ci américains yi. Mhm. ci Edwin Moses ak ñoom Philippe. André Phillips il faut mu côtoyer leen parce que c'était les meilleurs donc il était déjà dans le ranking cinq ci cinq meilleurs yi déjà bokk na ci donc mu ne il faut ma dem mu dem mu côtoyer les Américains ñu dem Séoul en mmh. moo tax mu remporter la seule et unique médaille d'argent. man pour man c'est là qu'il faut qu'il faut mettre le curseur. tu as parlé dans ton menu de de de JOJ on pas arrivé là-dessus. Mmh. mais déjà ñooñu noonu c'est des jeunes de 15 semé dinañ e. si ñëw semé non non dama la expliquer kii boobu noonu rek pour te dire que parce que man dama gis fële ay boy yu ndaw ay 20 ans la am. 17 ans ans 20 ans ñuy ñuy remporter donc ce qui veut dire que bi da nga xale bi koy teel a tàggat nga xam ne aussi sport nekkutul po rek. doo bàyyi ba booy bi qualifié ba mu réaliser ki am nga bugg ko def joxe na exemple léegi. performance yëpp ñu koy wutee aux États-Unis boo jëlee France xam nga am nañu lu ñu war a am yëpp. Mhm. mais dañ jël Léon te les américains. dafa entraîneur ki doon entraîner Phelps. voilà ki doon entraîner. Michael Phelps et les américains aussi on parle de Simon Biles Simon Biles moom entraîneur am la. Mhm. moom tamit dafa jël tànn ki nga xam ne kii laa yaakaar ni su ma nekkee ak moom mun naa conserver sama médaille mun naa gagner médaille bi ma perdre woon à Tokyo donc xaaral ma dem mu woo ndaw si une francaise moom kii américaine. mu woo femme boobu mu ne man yow laa bëgg nga entraîné ñu liggéey ñoo ensemble ñu ñëw les français qui envoie un français aux Amériques qui vient qui américaine dénk ko benn française française bi gagné donc affaire bi loolu la moo ko sinon rek xam la la ñuy am mhm. la fuite des des des dañuy bàyyi suñu ko suñu suñu kii mhm. dem seen yoon parce que boo demee surtout euh, les disciplines individuelles man pour man dañ ñu la war a jàppale bu baax. sànq président wax nga wax nga lu am sànq lu am solo sànq wax nga ne kii di euh, euh, Louis François Mendy mu noonu laaj avant compétition bi 23 nekk somme xamante ne état yi waroon na mën a génne. wala sa yeneen bonne volonté yi mais jàppoon foofu état bi am na part de responsabilité. ci li nga xamante ne moo di qualification. Louis Fran Louis euh, François Mendy mu dem sax décrocher une médaille bronze. wala argent ou croix man wax naa ko à la télé waxaat ko bind naa ko bindaat ko je suis tout à fait bu mu def bu mu demee championnat bu mu demee def d'Afrique bu mu gañee foofu lu mu wax lu mu wax en fait amul lenn li état du Sénégal def loo xam ne méngoowul ak yoon maanaam état du Sénégal daf ko jox trente daf ko jox cinquante mille cinquante mille yi c'est c'est un arrêté de Youssoufa Ndiaye qui remonte à février 2005 moo ne boo nekkee athlète boo demee regroupement bis bu yàlla sakk am nga dix mille francs CFA dix mille mhm. bu fekkente ne fii ci Sénégal la tu as droit à boo remporté le titre continental maanaam boo nekkee champion tu as 700000 francs loolu c'est un arrêté de Youssou Ndiaye qu'il faut saluer parce que avant Youssou Ndiaye aussi dara amul woon donc Youssou Ndiaye moo ko indi mais diggante Youssou Ndiaye bu mu koy def en 2005 ak léegi quand même athlète boobu mérité wul muy remporter champion champion du monde nga koy jox 700000 francs CFA d'autant plus que du ma def sax du ma def comparaison man bëgguma def comparaison mais quand même aujourd'hui en football les gens ont de sélection maanaam ñu convoqué la équipe nationale du Sénégal. jaay footballoo dafoo dara entraîné woo. tu as 500000 francs CFA. Mhm. dañ la convoqué kese. participer woo dafoo entraînement dafoo gar dañ la convoqué kese. Mhm. nga ñëw ñu yëkkati 500000 francs donc pour moi 28 23 millions état bi waroon na mën a génnee 23 millions jox ko moom booy bi d' autant plus que les les hauts fonctionnaires là qui voyagent. dans les missions qui partent chacun d'entre eux a 150 000 francs jour. Mmh, par jour oui. am. on lui François Mendy qui représente le Sénégal ak su gagné woon médaille lu mu nar a indi le Sénégal yépp mhm. journée bi mhm. nga koy jox 10 000 par jour. c' est pourquoi j'ai dit faut réviser ça. Mhm. parce que ki ko fay aussi le DAGE munoo ko def munoo ko wax dara. parce que il est basé sur la légalité. le moo fi nekk moo tax ñu fay ko loolu. mais quand même war nañu comprendre luy luy François Mendy di euh, arrêté Youssoufa Ndiaye bi ak 2024 bi ñu nekk nii wax dëgg yàlla war nañ xoolaat mbir mi mieux encore mhm. on peut aller encore plus loin mun nañ leen segg ci biir athlètes yi la crème ñu jël leen des passeports diplomatiques ñu jox leen ko parce que ñu ngi koy jox fii ay ay euh, n'importe qui ñu koy jox fii si réew mi ñu jox leen pour suñu man je me souviendrai toujours de ça euh. j'étais encore jeune reporter Ndis Kaba Badji loolu c'est pas du tout normal. Mm, mm. xam nga yooyu tamit nag sport d'élite dafa laaj benn gestion. il faut ñu comprendre loolu. athlétisme bi c'est très compliqué ça n'a rien à voir foofu football Sadio Mané bu sonnee mënoon na bëtu nga passe ko bal bi mu mel ni gisul li luy François Mendy bu teggee tànkam gars yi raw ko. Mm-hmm. discipline individuelle moo gën a jafe faire que la discipline collective dafa laaj ay trucs donc yooyu noonu boo ci amee ñaar wala ñett mun nga leen tànn. defar leen nga yóbbu leen ci truc de performance. jox leen les moyens qu'il faut ëllëg ci biir nag léegi. Mhm. yow doo doo doo wax ah man kat athlète bi lii la waxoon lii la mhm. defoon. jox nañ ko lépp te parce que mun nañ ko. Mhm. suñ ko munul comme li ma la waxee woon léegi man j'avais même préconisé ça. qu'on prenne par exemple les opérateurs de téléphonie. mun nañ jël kenn ñu ne ko yow Louis François Mendy tout ce dont il a besoin. Japon course yu muy daw entraîneur am bu mu soxla. lépp yow yaa jox billet bi yow yaa def dans le cadre de sa sociétale ñu jël euh, Sali Sarr ko beneen société ñu jël ki nga xam ne Yves Boris ñu dénk ko beneen société noonu la ñuy pour aider ces athlètes là sinon on va on va sortir même bu ñu demee Los Angeles vous allez refaire même débat et on va <laughs> attaquer les gens on va traiter les gens de tous les noms d'oiseaux alors que ça ne